roi Mohamed VI di buuru réew Maroc moo yabal délégation bi ngeen jàkkaar loolu fii ci Touba ci aljuma ji dëppook benn fan ci janvier ci atum 2021 délégation bi nag ku ñuy wax Abdou Latif Bagdouri moo ko jiite ànd kook Mohamed Refki ak yeneen kilifa yu mag yu nekk ca moomile réew ñu seet si woon xalifa général de mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou délégation bi nag bi ñu agsee Serigne Ahmadou Badawi Mbacké moo leen tatagal dalal leen ànd koog Serigne Djili Mbacké ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ginnaaw bi ñu leen dalalee ci lañ ànd ak ñoom dem ca daara Hizbut Tarqiyyah ci njiitalul Serigne aatu Diagne mu dalal leen ci ndigalu Serigne bi taxawu leen berndeel leen bernde yu yaatu lool te méngoo ak dayob gan ñile ba ñu fa bàyyeekoo ci la délégation bi daal di dem ci jumaay Touba ji mu dëppoo nag àjjuma ñu julli fa juma ci wetu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw bi ñu jullee juma ba noppi dem nañu ci barabu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi daal di fay amali ziyaara ak ñaan laata ñu fay jóge daal di dem visiter ji complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ñu naan ko université bu Touba di projet bu mag bu Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké Bassirou bi jëm ci njàng njàngale délégation bi nag bi ñu agsee ci complexe bi nemmeeku nañ mboolem liggéey bi ak fi nga xam ne fa la toll kilifa yi fa nekk te ngànk liggéey bu ni mel leeral nañ leen mbooleem li nga xam ne moom moo jëm ci projet bi ak fi ñu toll ci liggéey bu am solo bile. ginnaaw nemmeeku gi ci complexe bi ci la délégation bi daal di dem ca xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu dalal leen saafonte ak ñoom ñu yeesalaat bu baax a baax kóllëre gi nga xam ne moo dox. ci diggante réew Maroc ak yoonu murit mu nekk lu yàgg lool ci fàttali sax at mu jot délégation day bàyyeekoo ci réew Maroc ngir ñëw teew ci màggal Touba gi ren jii nag loolu amul woon ndax mbas mi ak yoon yi nga xam ne dañ ko tëjoon loolee nag la njiital réew Maroc di dabaatal ci délégation bi nga xam ne moom la yebal ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw bu ñu saafonte ba noppi ci jotaay bi am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa ci kàllaamay arab waaye bi ñu noppee sëriñ li Mbàkke tënk na lépp ci kàllaamay wolof. naa dañuy dellu si waat ci ñetti kàddu yi fi jib rek gu ci njëkk di kàddu gi sëriñ Ahmadou yëkkati sëñ Ahmadou Badawi yëkkati gu ci turu ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha kàddu gi di kàddu gu matale mu fedd li ci bu baax wala réew cosaan wi nga xam ne dox na ci diggante Maroc ak senegal dox ci diggante euh, njaboot gi nga xam ne tey. mooy gi eh, ki jiite ki yàlla def mu nekk ci bopp réewu Maroc di almalik Mouhamadou Sadis yàlla def na mu bokk ci njaboot googu te njaboot googu seen kóllëre Touba nekk lu yàgg ñu yàgg a jàppalante jamono yi du dox ba mu toog tey bokk ak jamono Cheikh Mouhamadul Mountakha kóllëre googu di gën di feddali ko saa su nekk. Eh, sëriñ bi sëñ Ahmadou itam dellu si waat bu baax ci itte ji nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha mi am na ko ci liggéeyub lislaam bi nga xam ne sëriñ Touba daf ko dénk. waaye xam-xam am ci ab taxawaay bu am solo mu wax ne taxawaay boobu nag moom sëriñ bi mi ngi ciy sant bu baax buuru Marok ndax gis na ne tàllal na ko loxo taxaw na ci wetam mi ngi ko ciy jàppale. te e, dogu gi mu am moom sëriñ bi ci liggéey boobu képp ku ko ci jàppale rek dana la sant dana la gërëm dana la ñaanal te gis na ne buuru Marok mi ngi ko ci jàppale e, kon mu ngi koy sant mu ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal. kàddu yooyu ci tënk rek loolu mooy li nga xam ne mas na ko jukki ci wax ji sëñ Amadou Bari wax kii toog ci wetu sëriñ bi itam di oustaz Abdou Latif Bagdouri moom it kàddu gi mu yëkkati yëkkati ko ci turu mbooloo mi nga xam ne moom la àndal kàddu cant la ak kàddu ngërëm tàmbalee ko ci bernde yu rëy yi nga xam ne defal nañ leen ko mu mel ne bernde yi wax dëgg yàlla yéeme na te sëriñ bi dénkoon ko sëriñ Atou Diagne mii eh, bernde yi yéeme na lool ndax eh, tey Euh, kuy kuy kuy kuy berndeel ku ku ku koo xam ne fukki nit nga doon séentu kenn ñëw fa wala boog téeméer sax nga doon séentu ki séentu far kenn ñëw maanaam tey bu doon téeméeri nit lañ ñoom délégation bi lam defi dara du ca wàññi ko kon ñoom gan ñi itam wax dëgg yàlla sant nañ ci loolu bu baax euh, seere ko bi ñu noppee itam wane nañ seen kéemtaan ak yéem gu ñu def ci liggéey ba nga xam ne moom la sëriñ bi def fële muy ca université ba bi ñu fa jaaree wax nañu ne yéem na leen lool liggéey bu rëy la wax nañ ne euh, loolu bu sottee ndam lay doon ci Afrique mu wax nañ ne seen jéego yi itam bokk gi ak wëllëre bi nga xam ne moo doxoon ci diggante euh, sëriñ bi ak xaritoo gi ak euh, buuru Maroc te li xew-xew muy mbas mi nga xam ne am na moo leen tënkoon ba mënuñu woon a teew ci màggal gi waaye nag seen xol ak seen xel lépp mu ngi woon Touba tey jii bi mu jàppandee tànk yooyu la ñëw ngir feddali ko won sëriñ bi nekk ànd bi moom ca kanam rek la jëm loolu mooy kàddu yi nga xam ne mas na ci jukkee santaat sëriñ bi bu baax tam ñaanalaat ko ci taxawaayam bu rafet kon euh, ki ci des itam ki jël kàddu léegi toppoon ci di Mouhamad Rifqi nekk aminu am muassasat Mouhamad Saas lil ulama al afariqa feddliwaat bu baax moom itam euh, taxawaay bi nga xam ne euh, sëriñ bi am na ko ci xam-xam mu wax ne kët loolu méngoo na ak li nga xam ne moom la ko buuru Marok dénk muy jiite mbooloom xam-xam moo xam ne Afrique gépp ñoo ko bokk mu wax ne kon fas na yéene taxaw ci wetu sëriñ bi jàppale ko ci liggéey bi ndax gis na ne liggéey bii kat bu sottee du rek ne waa Touba ñoo ci jariñu du rek ne yoonu murit moo ci jariñu waaye Afrique gépp ci jariñu lislaam jëpp ci jariñu kon ci tënk loolu mooy kàddu yi kon nag sëriñ bi mi ngi santa sant na leen kàddu yi sëriñ am wax duñ ci dolliwaat dara su ko defee nag ñu yeewi ko jërëjëf